Euh, salaamaaleykum maa ngi tudd Bokar bu Khalifa nekk représentant taxaw Dakar ci commission administrative pour la révision sur les listes électorales au niveau de la sous-préfecture de grande Dakar pour la commune de Grand Dakar. maa ngi en compagnie des autres représentants de l'opposition à savoir euh, Bougouma bu taxaw Dakar Awa Thiam bu PDS Mohamed Kourma bu représentant du maire euh, Lili Lambal bu PASTEF. le délégué Tchendela, vous représentez PTP, parti Maître la Diouf, avec Tchekande euh, qui représente le Parti Socialiste. Wow. Euh, ce matin, on était là, en train de dérouler normalement, mais dañu nous gis une meute de personnes nous pour inscrire. Quand on leur a posé la question, ñu ñu ne dañu savons que ñu si Yombol. Ils faisaient pas moins de 25 femmes. ñu sommes Yombol, nous avec des résidences faites par Ndeye Saly Diop Dieng ñu ñëw pour transférer leen pour indi leen ñu voté Grand Dakar ñu waxtaan ak ñoom ak yar ak teggin xamal leen ne loolu ñuy def c'est pas un acte citoyen que ku nekk par rapport ak locali localité dafa war a dem inscrire fi mu dëkk mais waroo ñëw si localité jàmbur ñu pour ay pour xaalis nga bëgg ñëw inscrire fii loolu la ñu dénoncé moo tax ñu bloqué opération électorale yi quand on a parlé avec le sous-préfet il nous a fait carrément savoir que moom Euh, yoonam nekkul si ay politique il a appelé devant nous la présidente de la commission jox ko ay instruction intimé ko l'ordre mu signé bépp résidence boo xam ne jóge na si Ndeye Saly ñun nag nous avons pris acte mais comme euh, euh, combat citoyen la on a préféré rester dehors képp koo xam ne ñëw nga avec des documents yu yu fiable yu viable ñu bàyyi la nga dugg képp koo xam ne ñëw nga ak ay documents fictifs ay résidence fictives ay documents yoo xam ne Ndeye Saly moo la ko defaral duñ la bàyyi nga dugg parce que kooku warul vote Grand Dakar te bu ñu seetaanee mu voter Grand Dakar ëllëg doomu Grand Dakar yi ñoo siy souffrir pendant cinq ans. xam ne ci oto waaw xam nga xam ni ñu ko doon defee ñoom. ak li xew tey. tiital na leen de telle sorte que boo leen seetloo depuis onze heures daanaka li ñëw matul dix personnes te sax dañu changer oto. malgré que changé nañ oto gis ngeen yow seen bët am na ñu ñu jot a ñun parce que dañu wàcc si oto bi ñu xool am na koo xam ne carte d'identité la yor CEDEAO euh, di voté route de Puy ak bureau numéro un mais kooku dañ ko defaraatal beneen résidence ak beneen photocopie te Ndeye Saly moo ko defaral ñu xamal ko ne yow yaa ngi voté déjà yaa ngi si déjà mu ne ñu dix mille francs lañ ma jox pour ñu indi ma jëlee ma yëmbal indi ma ma ma inscrire ñu ne ko nag yow waroo voté bañ ko waxee ba sensibiliser ko mu d'accord si ak ñun dem ñibbi. kon yow parce que ki am carte d'identité ba pare ñu joxaat la beneen kii. loolu c'est un fait boo xam ne am na ay journalistes yu si teg seen bët léegi ndaw si ñëw na ak pièce d'identité am voté route depuis bien écrit mu ñëw ak beneen résidence ak beneen photocopie même personne bi bëgg inscriraat c'est des choses yoo xam ne duñ ko bàyyi mu jàll musuñu ko bàyyi mu jàll. xëy na tey euh, tubaab dafa ne il n'est jamais trop tard pour bien faire on est conscient de notre rôle en tant que euh, citoyen de Grand Dakar looloo tax ñu ne lii warul continuer te du continuer te nu ferons face avec la manière pour que lu mel ni jeex. que comptez-vous faire? Euh, debout face à cette situation illégale wane ne ñun ay citoyens Grand Dakar lañu li ñu ñor li ñu soxal mooy ëllëgu Grand Dakar. ba ñu ñu transfert mais illégalité bi am fi irrégularité yu am fi loolu la ñu dénoncé sous la avec la complicité du sous-préfet de grande Dakar loolu la ñu dénoncé. yéen avisé ngeen ne ça fait un mois ñi ngi wax ak moom chaque jour ñu jox ko information chaque jour ñu yóbbul ko ay preuves depuis boobu nanguwul def dara comme nanguwul def dara nag ñun dañu yaakaaroon ne autorité boo ko yóbbulee preuve dina jël responsabilité bi assumer ko mais autorité pendant un mois nga koy wan ay preuves. mu lay mu lay muy tergiversé ak yow dañu ne trop c'est trop ça suffit looloo tax ñu génn tey def lu ñu def nii te dinañ ko continuer ba la. xam nga le combat c'est politique mais c'est un combat citoyen dinañu ut huissier dina ko constater dina ko constater. mais waaw waaw kii ngeen di gis ni kii ngay gis ni kii ngay gis ni man moom damaa comprendre woon nu mu demee ndax dañ maa woo dañ maa woo ni ñu suba da ngeen di dem Dakar te xam naa ni tamit ki ñu woo tamit xamul affaire yi nan la demee uniquement ba fii ñu toog nii dañ ñoo woo ñu woo ñu ñëw ñu toog ba ñu fan nga dëkk léegi. cee Fass Mbao. Fass Mbao nga jugee. waaw kan moo la woo fii lañ kan moo la woo. jarul tur eh, jarul tur mais yow yor nga carte d'identité boo xam ne ruj jox ko beneen kayit boo xam ne Ndeye Saly moo ko. kon yow ki nga doon wax léegi preuve bi moo nekk nii. preuve yaa ngi donc lépp lu ñu def. dañu man il faut ñoom ñu xam ko parce que man fi laa juddoo ba toll ni ma toll ñun ñëpp ñoo xamante moo tax bi ma ñëwee ñoom dañ maa xàmmee man ma xàmmee leen. moo tax man bu fekkoon tamit xam naa nu mu demee carrément dinaa ni leen foofu sama koñ la mais xaw ma nu mu demee. mais yow xamoon nga ni ku ba pare soxlawul waat dañoo xamul loolu lépp ñun. xamuñ ci loolu lépp. duñu leen wax loolu mooy problème bi.